hello la famille bëgg naa leen j'espère yéen a ngi ci jàmm bu baax tey nag seen xibaar tàggat yaram ma war a waxtaanee ñaari image yooyu ci gannaaw donc damay njëkkee ci kii kii di Emet Ndeye di doomi Sénégal di doomi Casamance moom nag mu débuté footballam fële ca Casa Sport mu nekk milieu terrain boo xamante ne li muy def mën na ko moom mii nag permettre na à Casa Sport ñu jël li di championnat bi waaye rawatina lii di coupe du Sénégal après loolu ci la rejoindre lii di club bii di Jaraaf Jaraaf nag nekk club de quartier mën naa ne club. mbooloo club boo xamante ne public bu mu am nee naa la ku ñu taseer rek public bu ñëwee rek defe naa ne da ngay bëgg am envie toog seetaan match ba mu jeex tey nag nekkoon vingt-deuxième journée bi ñu doon jouer euh, Tëngéej contre Jaraaf fële ca stade bu Ngor euh, Jaraaf nag gagné kii di Tëngéej 3 bu à 0 moom mii nag di Emeté Ndeng euh, dugal na ci but yi parce que à la soixante-dix-septième minute la dugal but bu rëy rëy moom mii di Emeté Ndeng c'est un jeune pétri de talent très visage sur ses passes nee naa leen moom mi bu yoree bal a ah, pour nga jël ko dina nekk lu métti ci ci yow donc bu leen fàtte gars yi ngeen bàyyi xel euh, Emetening bu baax a baax ndax bokk na nag ci les meilleurs joueurs ci championnat local bi donc ma ñëw ci kii di Souleymane Cissé si Cissé nag nekkoon fële ci Linguère mën naa ne nekkoon na ci meilleur joueur u Linguère yi defe naa ne foofu noonu sax la ko jaraaf euh, jëlee indi ko ci équipe moom mi nag di attaquant attaquant boo xamante ne li muy def mën na ko tey bi doxoon ci diggante Tëngéej ak Jaraaf moom nag moo ubbi bi dugal bi bu rëy à la septième minute moom mi nag mu nekk ndaw waaye defe naa ne bu téyee bal bi rek lu ko neex la ciy def donc ñaar ñii nag ñoom laa leen indiloon tey pour waxtaane ñoom ci li nga xamante ne mooy performance yu ñuy def Souleymane Cissé auteur de six bi ci li nga xamante ne mooy championnat bi aller bi ak phase retour bi ñu toll nii auteur de six bi ñu bàyyi leen xel bu baax. lañ leen andiloon seen xibaar tàggat yaram jëlaat beneen joueur wax ci moom ci performance yi nga xamante mu koy def ci football bi de leen aimer, di commenter di partager